loolu waroo xaar sax ñu lay woo comme mbir mi mbiru jullit ñi incha allah ñu ngi ci invité bépp képp ku dégg suñu kàddu moo xam si ñu di exporté suñu xarit yooyu nga xam ne vraiment ci seen compréhension lañ ñu mayee ñu defee fi conférence parce que bu leen neexoon ñu bañ ko ñu leen di gërëm ci loolu waaye di leen waale ba tey ñu ñëw fekkee jootaay bi jootaay yu bile incha allah tey nag waxtaan bi ñuy waxtaanee mooy benn thème bu am solo thème boo xamante ne ñun ñëpp dañ ko yittewoo ñu duppee ko ci benn saar mi benn aaya boo xam ne borom bi subhanahu wa taala mi ngi koy wax aouzu billahi min ashaitan rajim yaa ayuha al insan maa garraka bi rabbika al karim kon loolu mooy tam bi nga xamante ne incha allah moom lañ bëgg waxtaane comme xaw nañoo tàddee tuuti bëgg ñoo guddal wax ñi ngi ñaanal yàlla subhanahu wa taala mbokk bi koy def mooy oustaz Saïd li borom bi subhanahu wa taala dëgëral ko sàmm ko aar ko ba li mu bëgg a joxe mu joxe ko ci anam bu mucc ayib ñun ñi nga xam ne ñi ngi déglu tamit yàlla defal ñu tawféex defal ñu dégg ak topp kon incha allah du ñu guddal dañu ko bàyyi mu dugg ci waxtaan bi bismillah tafaddal bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا بلغ رساله القران وادى امانه البيان ونصح الامه ومهو الظلم وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ñoo ngi jéemantu fàttalante ak yéen ci aaye bi doomu ndey bi wax ne ci lañ fas yéene def waxtaan bi te mooy yaa ayuha al insaan maa garraka bi rabbika al karim abu hurayra moo ñu nettali ci aaya boobu mu ne kaana abu muusa ida qaraa ya ayuha linsaan maa garraka bi rabbika alkarim qaala aljahlu wa baka abu hurayra nee na am na kenn ci ndongoy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ku tudd abu muusa abu hurayra ne abu muusa bu daan jàng alquran ba yegg ci aaya bi borom bi woo doomu aadama ne ko yaa ayyuha linsaan maa garraka bi rabbika alkarim moo yow doomu aadama yow fàttekat bi lan moo fees sa bët lan moo la jay loo gis ba nga bàyyi sa borom nee na bu Abu Moussa waxee loolu danaan réer rek daal di jooy maanaam dara taxul doomu aadama bàyyi boromam lu dul réer rek réer rek ak alko waaye sunu borom subhanahu wa taala fi mu jaar ak doomu aadama ñëpp ba doomu aadama egsi nekk fi mu nekk dëgg-dëgg bu doon doomu aadama gor la ku nar a texe ëllëg la dara du fees bëtam dara du ko jay ba mu bàyyi boroomam moo tax yàlla subhanahu wa taala bi mu gisee doomu aadama fayul bor bi yàlla daal di koy woo ci woote bu yéeme mu yaa ayyuhal insaan ee yow fàttekat bi ee yéen fàttekat yi boroom xam-xam yi nee nañ fal insaan mahalu nisyaan fa inna awalu naas awalu naas ñu ne doomu aadama mooy magasin wu fàtte ki njëkk a fàtte mooy ki njëkk ci nit ñi mooy aadama wa laqad ahidna ila aadama min qablu fa nasiya yàlla nee na ki njëkk a fàtte ci yéen mooy seen baay moo tax yenn ci ñenn ñi sax dañ naan nit ñi fàtte bi ñu bi ñu nekkee dañ koo donnu waaye buur bi tabaraka wa taala mu ne wallazi garra al insaan billahi taala huwa al jahl bihi subhanahu wa taala li war nit ñi ba yàlla ne leen lan moo leen jay lan moo leen nax lan moo fees seen bët ba ngeen bàyyi seen boroom lu ko waral mu ne aljahlu ñàkk a xam réer waaye ku xam yàlla doo ko woon ginnaaw waaye comme doomu aadama moom xamul dafa réer dafa sànq ndax bakkanam dafa fees del ak bakkaar bakkaar yooyu ñoo dem ba fees ci moom ruuxam tilim xelam lëndëm mu fàtte borom bi tabaraka wa taala mu ne wa nafsuhu l ammaara bi suu wa jahluhu wa hawaahu bakkan boo xam ne bakkaara ko muur ba kenn xàmmeetu ko muy nit koo xam ne dafa fees dell ak bakkaar ba kenn xamatu ko kenn xamatul sax yoon bi muy jaar ak réer gu mu réer ak topp gi mu topp bànnee xam lii bokk na ci li war doomu aadama ba mu bàyyi boroomam waaye wa ata lil lafzil karim borom bi li ko doomu aadama di bàyyi yëpp xoolal borom bi baat bi mu utiliser ci aaya bi mooy maa garraka bi rabbikal karimi lan moo la jay lu fees sa bët ba nga bàyyi sa boroom bi nga xam ne moom la ñuy wax alkarim mooy ku tedd ku mag xoolal fan la jaar ak yow ci maniyu maniyu boo xam ne mi ngi génne ci ñaari place yi ñuy tuure ndox bu dee ku góor fu ñuy tuure ndox la ko génnee bu dee ku jigéen ca fa ñuy tuure ndox la mu ne ñaar yooyu doomu aadama bi génnee ak li ko yàlla bindee ci mooy man yu boobu ak fi ko yàlla denc moo tax yàlla bi mu gisee doomu aadama ñàkk koo topp mu woo ko fàttali ko fan laa jaar ak yow mu ne ko yaa ayyuha linsaan beneen aaya bi mu ne ko fal yanzurul insaanu mimma xuliq yow mi fàtte xoolal ci lan la la yàlla bind ci man yi boo xam ne feesul xottu gerte ku mu takk sa yaram boo xëyee suba sangu ku mu takk sa yaram boo xëyee suba da ngay sangu bu taxee sa yére boo xëyee suba da nga koy fóot kenn ci ñun bëggul génn maniyu boobu nekk ci wetam wala ci yaramam wala ci quelque part ci li ko wër nit ñi di ko teg bët yàlla nee na maniyu boobu laa jël dugal ko ci ruxu mu jigéen fa jaalnaahu fi qararin makin ila qadrin maalum fa qaddarna fa nicma alqadiruun borom bi tabaraka wa taala mu ne maniyu boobu laa jël ci ndiggal góor laa ko jëlee bu dee ci jigéen maa ngi ko jëlee ca déndi baat ya ma dajale ko muy ndoxu góor ak ndoxu jigéen yàlla nee na ma def ko ci benn place bu am sécurité place boo xam ne ba ma ko fa dencee dara fekk ko fa loxo du ko fa fekk lenn fekk ko fa amul kenn ku fa dugg borom bi ne ndox moomu laa jël ma koy soppi ñeent fukki guddi yu nekk yàlla nee na ma changé ko ndox la woon yàlla jël alxalaaya def ci xalaaya mooy lan li tax boo xoolee gis suñu waxee nga dégg soo tibbee ab dànk nga def sa gémmiñ nga xam dafa saf wala dafa weex wala dafa lewet wala dafa neex wala dafa forox loolu lañ naan ay cellule bi ko ko yàlla defee ci doomu aadama yeneen ñeent fukki fan yi yàlla day changé deret la woon mu def ko ay yax def ci ay sidit moom 40 jours mu jël yàpp def ci summa kasafna al izama lahman mu jël yàpp muur yax yi maam ñeen fukki guddi summa ansha'nahu xalqan axar yàlla nee na ma jël lu def ci jamono boobu yàlla di soppi loolu ci biiru ku jigéen ki bàyyi ji ci def maniyu bi mu ngi nii toog waaye xamul lu xew ndaw si ëmb doom ji xamul lu xew moom gis na biiram bi rek waxtu yu nekk biir bi day taaweeku loolu mooy wan ne doom jaa ngi màgg ci biir bi bi waxtu juddu jotee ndaw si yuuxu ci biir kër gi mënatul nelaw borom këram gi ko fi indi woon mënu ci dara day taxaw ne ko lan la ne sama biir bi mooy métti waxtu wi guddi na de est-ce que xam nga bonne heure moo jot ndaw si ne ko loolu sama yoon nekk ci man damaa mënut a tëdd léegi lu ñuy def mu ne yóbbu ma hôpital moom mi ko fi indiwoon munu ci dara amul lu muy jàng ba mu sedd amul comprimé bu mu koy jox mu naan ko ba mu tàggoog métit bi dara la ci mënul amul ay reen yu mu mën a jàmb hôpital rek mu génn ci guddi gi une heure la deux heures la minuit la waxtu wu mën a nekk taxaw ci tali bi di wut oto waa mais oto arrière ko ba ci buntu kër gi ndaw si yéeg cëpp hôpital sage femme yi wër ko ne ko lan la ñu ne mat bi moo ko yëngal ñu ne mais ñoragu na delloo leen ko ba fajar ngeen indi ko ñoom sax mënuñ ci dara buñ ci mënoon dara bi ndaw si ne cocc yegg si ñu génne doom ji teg waaye dañ naan mais ñoragul de foo mu dellu kii day doog a commencé waa ji tiit ne leen kii nu ma koy delloo ñu ne ah danga ko fi bàyyi kii affaire bi ñoragul boo ko fi nekk boo ko fi bàyyi tamit dafii lay nekk mais kenn du ko laal dugalaat ci oto bi indiwaat ci kër gi waa ji du nelaw ndaw si du nelaw waa kër gi duñ nelaw day onk di va et vient néeg bi naan yaa latif allahu akbar yàlla rek lay woo xoolal fàtte na ndeyam fàtte na baayam fàtte na lépp ci àdduna te kër jaa ngi ni toog fàtte na yàlla lay woo yaa latif di def va et vient va et vient yenn saa yi mu toog doom ji yëngatuwaat mu jóg di va et vient ba fajar gi jot waa ji demaat jëliwaat oto ñu yóbbuwaat ñu ne ba léegi des na des na de waa ji mer romb hôpital boobu ne xamu leen dara ku ci beneen hôpital mu yegg si ñu ne ko ah pourtant des na mu ne yéen xamu leen dara noonu lay def di wër ndeysaan yenn saa yi bu dee bu dee ku bëri yërmande ndax day yërëm soxnaam ba fu muy mujjee ñëwaat mooy ñooñu ne ko pourtant fi ngay jaar yëpp lan lañ la wax ñu ne mu ne ñu ne des na ñu ne pourtant dafa des xaaral tuuti rek mu ne kon xaaral ma bàyyi ko fi ma dem liggéeyi. minute bu nekk mu woote téléphone ndaw si ne ko ba léegi maa ngi nii xanaa amuloo benn ñaan allah allah xanaa amuloo lu ngeen di wax yàlla rek subhanahu wa taala day wan doomu aadama fan laa jaar ak yow kenn mënu ci dara fu mu yegsi ñu ne mënuñ ci dara borom bi nee na maay toog ba mu neex ma ba ma xam ne kii ci biir bi waxtu bi mu war a judd jot na mu ne ko uxruj ayuha almawlud bi haqi almalik almabud yàlla nee na ma ubbi yoon boo xam ne ku fa jaar te jaar loowu ma la fa rek da ngay dee summa sabila yassarahu yàlla nee na ma ubbi yoon bi yombal ko ba mu yomb nit daal di génn li lay wan ne yàlla moo ko ubbi su nit ki génnee ba pare ñu ne nañ ko delloowaat foofu ndax dina dugaat ndax dina dugaat mbokk yi kan moo may tontu ndax dina dugaat du dugaat de boo doon togg ataaya ñorul nga xilli nga xelli kaasi joxe ñu ne ñorul noo koy def danga koy këpp danga koy dellowaat boo doon togg ceeb nga yekk ñorul ñu ne ñorul nooy def danga koy defaat cin bi lu tax kii juddu matul ñu ne ñu ne matul te dellowuñ ko summa sabila yassarahu yàlla nee na maa yombal yoon bi ba nit ki daal di judd bi nit ki juddoo lan la ko yàlla teeroo waat munu lekk yàpp munu lekk ceeb amagul ay bëñ déggul benn làkk fi ñu ko sàngee ba pare jox ko yaayam ne ko góor nga am wala jigéen mu seexal ko ween yàlla mu ne min bayni farsin wa damin labanan xaalisan saa'igan li sorabin diggante soow ak deret ak nefere ma freiné deret bi freiné nefere bi soow bi di génn liir bi di kan moo ko nem nag muucul kan moo wax liir muucul ban làkk la dégg yaay ji da ko ne muucul muucul ween laa la jox koy jox rek noppi liir bi daal di muuc ku ko ne li ñëw soow la kan moo ko wax mu daal di muuc muy soow bu dee jamono seddaay yàlla tàngal ko mu nugg bu dee jamono tàngaay yàlla seddal meew mi mu mu sedd guy mu daal di muucu daal di wan na xoolal yaay ji fàtte na métit neuf mois liir bi juddu ak coono goog métit bi fàtte na ko ki jar na sant wala jarul sant maa garraka bi rabbika alkarim alkarim moo def lii alkarim mooy koo xam ne lu mu def rek boo ñëwee xam naa kii ko def ku baax la de mooy alkarim ci ñaari minute yaay ji sangu na ba set doom ji sang nañ ko ba mu set yaay ji solaat naa ay yére yu set doom ji solaat naa nañ ko yére yu set ku ñëw ndeysaan da ngay kontaan papa jële jàqoon tiit nga xam ne mënu ci woon dara mu ngi taxaw waa kër gi tiitoon di xaar ban information la ñuy jot ndax jamono bu mel noonu instant bu nekk àllaaxira day am gan bu ñëpp jaaxlee yàlla def li gën nit ki daal di juddu mu juddoo tëdd ci kaw lal bi lu judd rek dox ba mu des nit doomu gaynde ak doomu nit lu ëpp su ma laajee da ngeen di tontu doomu gaynde moo gën a rëy
doomu nit ak doomu gaynde lu ëpp doomu gaynde doomu nit ak doomu ñay lu ëpp doomu nit ak doomu gëléem lu ëpp pourtant yooyu bu ñu juddoo rek ay seconde dañuy topp seen yaay wala nit day judd moom du topp yaayam mu lu tax parce que dañ ko war a defar avant muy dox dañ ko war a defar avant muy wax dañ ko war a defar avant muy am kàttan suñ ko defarul gis nga bu màggee mooy li ngeen di gis fii mooy nag yi ngeen di gis ñuy bëkkaat ak di jamaate ak di dóore parce que defaruñ leen woon waxtu woowu rafiq tiflaka sabaan wa allimhu sabaan wala yib sabaan sept fois trois vingt et un ans mu nekk imam vingt et un ans jub xocc mais duñ defar ñun moo tax yàlla subhanahu wa taala mu ne wa huwa saydu al azim al muta alladi la yanbagi al ictiraaru bihi wala al ihmaalu xaqahu borom bii jaar ak yow fii bi ñëpp tëlee fu nekk ñu daw waa kër gi tëlee borom kër gi tëlee hôpital tëlee yàlla ne maa ne ayuha almawlud uxruj bi xaqi almalik almaabud nga juddu man yàlla mi dëgg-dëgg maay sang bi ñu war a topp kenn waru koo mooy ci benn dëkk bu tudd Soudan xam ngeen al anglais yi ñoo leen colonisé woon am benn policier anglais xëy suba ñu jox ko circulation bi na ko defar am benn kaw kaw bu jóge ca kaw ga am yitte ci ville bi ñëw fanaan si kër mbokkam xëy suba ñu jël oto mbokk mi di ko yóbbu ci ville bi pour mu defar ji ay soxlaam yooyu mu tax koo jóg mu jékki-jékki rek gis police bi taxaw ci circulation bi di ko defar di tàllal loxo di siffler moom kaw kaw bi mu ne mu ne mbokk mi man haza kii kan la waa ji ne ko haza kaafir mu ne kii ku weddi boroomam la al kaafir mooy ku weddi boroomam rek waa ji daal di sujjóot ndaal ne hal fi dunya man man yakfuru bi rabbihi ndax ci àdduna am na ku ñeme weddi yàlla nañ ñibbi yitte bi baax na baax na doxatuma ko nee na man sama bët du tegu ci kaafir mu daal di jël oto daal di ñibbi rek lawul problème bi nit bu amee jom doo weddi boroomam mi ngi mel ne tey rek sa yaag sa baay ci kër gi mu defal la lépp lépp sa avenir lépp mosoo xiif mosoo mar lépp moo ko réglé benn bis mu yónni la nga ni ko non ma temps ma fatigué quoi damay noppal lay xool ba caag mu ne yow amoo jom nit amul jom digganteem ak boroomam suñ xoolee ñun ñu toog fi yëpp fi yàlla jaar ak ñun góor ak jigéen boobu sunu yaay tegee ci kaw lal bi looy dunde lan ngay dunde te buñ bëggoon léegi soow ci pël bi nu ñuy def ñuy boqat suñu poos yow ngay naan soow jëndoo foo ko jënde foo ko jëlee kan moo la ko defaral te boo bëggoon léegi rek nga dem ngay jënd bu yeboo sax nga xiif bay waaj a dee di lang nga ñëw ne waaw waaw waa ji meew mi nag mu ne meew mi nag ko mënuma ci am duudi mu ne sa waay doxal dox bi doxal dox bi ah boo bañee mu génne kuuram mbool de teg nga xam ne kii kuddam ràccul jàmm nga daal di départ ah nañ xool suñu borom mbokk yi fu mu jaar ak ñun moo tax mu ne ko maa garrak mu ne li war ci doomu aadama al itiraaf mu reconnaître yàlla lan la ko defal nit sax bu la defalee da ngay toog daal ne kii lu mu wax ma def way gars yi naan naa ko bàyyi mais ñi dañoo dof kii xamuñu fu ma jaar ak man nit laa wax de ku baax su la defalee sax da ngay toog yenn saa yi di ko reconnaître xoolal sunu borom nee na fii laa jaar ak yéen nga nekk xale di cappi cappi yàlla préparé la ndey ak baay bu la toppatoo di la sang di la toppatoo ngay lekk di naan loo bëgg ñu def ko yàlla moo la ko préparé parce que yow indiwuloo ko programmé woo ko mais yàlla moo la ko tàggatal ñaari jaam yu nekk sa service doo jooy boo feebaree ñoom ñaar ñu feebar boo sonnee ñu sonn loo joxoon ñu dagg ku la laal ñu xeex ak moom yàlla nee na ba sàkku ji xam-xam jot ñu yóbbu la ba pare di génn di financé moo tax mu ne doomu aadama dafa war a itiraaf reconnaître amul droit di réere aqi boroomam amul droit waaye mu ne fa wada al muxtar al garuur fi mawdihi waxtarra bi man laa yambaxi al itiraaru bihi waaye doomu aadama ndeysaan ni cëpp rek commencé am fanweeri at fukki at ak juróom-ñett fukki at ak juróom yëngal cër yëpp yëpp yëngu lu mu yëkkati mu jóg mu daan ne yàlla au revoir baax na léegi bàyyi ma ma demal sama bopp waaw baax na léegi yow yàlla soxlaa la tuma la bàyyi ma ak sama bopp yàlla mu ne ko yaa ñàkk jom yaa laha min aaya azima wa yaa lahu min nida tahtazzu lahu lqulub moo tax bi doomu aadama ne yàlla baax na soxlaa la tuma la mën naa demal sama bopp am naa sama liberté am naa xel damay xalaat am naa sama doole am naa sama xam-xam yàlla ne ko déedéet man duma la bàyyi yaa ayyuhal insaan maa xarraka bi rabbikal karim mu ne aaya bi bu ko doomu aadama doon déglu rek war na rus war na am gàcce xolam war na yëngu yaramam daw yawma yunaadi alayk ayyuha al insan al faqir ad daif démb damay seetaan film al imam Ghazali dafa am benn scène bu tudd Qanaal saa yu ñu jullee gee ba pare day teg film imam Ghazali depuis weer démb épisode bi ñu teg fekk yaayu imam Ghazali di génn àdduna ndeysaan sëriñ bi mu ne man daal dee mooma yéem dee mu fàttali nit ñi hadis bi annaasu niyaam isa maatu yastayxisu nit ñi dañuy nelaw instant bi ñun ñëpp dañuy nelaw kañ la ñuy yeewu buñ duggee biir bàmmeel allahu akbar bu lenee cas ci kër gi yóbbu la ci bàmmeel bi gas ba mu xóot dugal la nit ñi ñibbi rek nga yeewu moo tax yàlla mu ne foofu wa basaruka al yawma hadid gis nga de wa basaruka al yawma hadid tey di nga yeewu yeewu boo xam ne di nga gis-gis goo xam ne bàmmeel bi li muy lëndëm lëndëm lëndëm lëndëm nga xam ne amul lampe amul dara su fi sa puso waddoon di nga ko gis ndax tey di nga gis wa basaruka al yawma hadid mu ne annaasu niyaam nit ñi dañuy nelaw iza maatu yastayxizu mu ñibbi ak tristesse bu metti këram jabar ji ne ko imaam lan mooy sa problème tey da nga triste ndax sa yaay li mu génn àdduna moo tax mu ne ko dee moo ma yéem dee moo ma jaaxal mu ne ko xaaral ma génne la ci sa problème bi daal dem indi benn gitaaram ne day gitaaral sëriñ bi pour fàtteloo ko mooy li li gars yi def non xaaral quoi da nga am problème xaaral ma génne la ci quoi non il faut ñu il faut ñu changer milieu bi quoi il faut ñu changer place ñu bëri ñu dugg ci musiba loolu moo leen dugal même dangay gis kuy tox cigarette booy boo bëree problème da ngay taal benn quoi boo xëccee aj daal di sànni rek problème yi dem waaw nga dem uti commencé di xëcc di sànni pro problème taxaw di la xaar rek nga dóor ba pare mu ne la pare nga tux nga ne waaw mu ne la man de maa ngi nii taxaw cigarette fan lay dindee problème problème li koy dindi mooy yàlla yàlla subhanahu wa taala mooy dindi problème am na ci Allemagne benn xale bu tudd Jacques da daan qissa bu gudd a gudd la waaye dama koy tënk tuuti pour rek ngeen xam yàlla bi mu ñu bindee daf ñoo booleeg téere bu ñuy dindil problème Jacques dafa nekk xale bu ndaw day wàcc ci benn immeuble am na benn magasin magasin bi ki fi jaay jullit la bu jëndee ba pare mu sàcc chocolat dem ba mu nekk 5 ans bis bu nekk muy sàcc chocolat paa bi xam na ko de mais comme xale bu ndaw la da ko ca bàyyi ci biir ba benn bis mu jënd di dem sàccul góor gi ne ko Jacques mu ne ah mu ne ko sàccoo tey de rek xale bi rus ah mu ne ko chocolat baa ngi nii mu ne kon xamoon nga ne maa ngi sàcc mu ne xam naa ko kay mu ne lu tax waxoo ma ko waaye damaa xamoon ne bis dina ñëw nga feeñ doo rëcc doo mës a rëcc xale bi nag léegi nag noo may def mu ne ko ah yow kay laay laaj ma yóbbu la police wala ma dem wax ko say parents mu ne ñaar yooyu de bëgguma ci benn mu ne léegi nag nu ñuy def mu ne ah léegi kay yow laay laaj mu ne ko leen de xam naa ko su fekkee nangul mu nga ma ko rek incha allah problème du am mu ne lan la mu ne nga nga waatal ma ne bàyyi naa sàcc du ma ko wax police du ma ko wax sa sa waa kër mu ne ko sëriñ bi waat naa ci yàlla ne dootuma sàccati mu ne ko man tamit waat naa ci yàlla saa yoo jëndee dinaa la may benn chocolat xale bi saa yoo wàccee jënd góor gi jox ko chocolat xale bi màgg waaye xam ngeen jeune Europe suñuy màgg rek problème yi commencé xale bi saa yu demee ñëw rek ñëw ci paa bi ne ko dama am problème paa bi ne ko xaaral ma ñëw dem ubbi benn man benn benn boîte daal di génnee benn livre ñëw ne ko luy sa problème mu wax paa bi daal di ubbi ñaari page ne ko lii ak lii ak lii mooy rek la problème bi rek mu ne ko wax nga dëgg rek mu daw rek la ko ñëwaat toogee deux mois amaat problème ñëw ne ko góor gi amaat naa problème de paa bi dem ubbi téere bi ñëw wax ko ko paa bi feebar dee Jacques am problème triste am problème luy problème am amatul ku ku dindi problème am mu ñëw ci dëj bi di jaale xale yi ne ko ah yow de sunu papa am na lu mu la may benn cadeau fii ne ah mu ñëw ñu jox ko livre bi mu ne ah livre problème daal di koy taf ci dënd bi oh seen papa xam na ma moo tax mu may ma livre livre bi mooy livre bi dindi problème léegi nag Jacques dem na am na problème mais déggul arab muy wër ci biir Allemagne li kii doon wax sànq muy wër ci biir Allemagne kan mu dégg arab mu dajeeg benn tunisien bu dégg arab dégg français mu ne ko livre bi saa yu ma amee problème sama paa bi ma ko jox daf ci daan liir rek sama problème rek la dama am problème mu ne ko luy sa problème mu ne ko nangam ak nangam ak nangam waa ji ubbi rek ñaari paas la liir Jacques ne ko doy na problème bi rek la wu na daal di jóg mu am ne ko waaye téere bii téere njabar la wala téere lan la mu ne ko téere bii mooy téere alquran mu ne fu mu jógee mu ne ko allah subhanahu wa taala moo ko wàcc pour lan mu ne ko pour régler problème mu ne wallahi téere bi day régler problème saa yoo ma amee problème ma nekkee xale ba léegi mu dindi ma ci léegi nag man nan laay def ba ba ba ba ba dugg ci téere bi mu ne ko da ngay nekk jullit waaye daal di koy tuddloo baatu seede yi Jacques daal di nekk jullit yahud la de mu ñëw Afrique mu tuub la un million africain yaayam sax moom moo ko tuubloo ah mbokk yi xoolal ñun jullit ñi xamuñu nekkee alxuraan day dindi problème ñun bu ñu amee problème eh waaye ma foofu benn kaas quoi dem naa ni sàngara et ñu bëri naan sàngara lan moo la ci dugal damaa amoon problème rek ma dem naan ñu ne ma na ñan ñenn ñi di tox ñenn ñi ñenn ñi fekk ndeysaan ala bi zikrillah tatma innul qulub mbokk jullit yi sunu borom mu woo doomu aadama bu lot bu faqir bi bu ñàkk mu ne ko maa garraka bi rabbika alkarim man la fi xadaak lan moo la war hatta asayda alwahid alqahar lan moo la nax ba nga bàyyi kii nga xam ne moo mun lépp mbokk yi boo néewee doole looy soxla du ko am doole boo amul alal looy soxla ku am alal boo ñàkkee looy soxla ku am yii moo wax kan moo ko ëpp yàlla am na ku gën a omal yàlla walillahi xazainu samawati wal ard am na ku ëpp yàlla doole ah huwa alqahiru fawqa ibadi am na ku ko gën a baax ah kon looy doy ci keneen nga bàyyi sa borom moo tax mu ne lan moo la doy lan moo la jay lan moo la tàqaleeg sa borom lan moo tax boo amatee ay jafe-jafe doo diisoog sa borom doo déyeeg moom man lazi xadaak fa fararta fi hududillah lan moo la jay ba nga tëb miir bi yàlla miire woon ne bu ko kenn xëtt nga jéggi miir bi yemoo sax ci jéggi miir bi waaye jël martu di daaneel miir bi daan ne fii kenn du fi def frontière lu tax yàlla di baaree lii lu tax yàlla di ko tere léegi nga dégg ku ne lu tax yàlla tere dara ah fu mu ko teg ah yaag yàlla ba foofu mbokk jullit yi man lazi xada aka fatahaawanta fi sola lan moo la war ba yàlla sax jaamu yàlla gim la santoon muy salaa julli jot doo ko def am na ci ñun ñoo xam ne seetaan làmb seetaan coupe d'Afrique moom yàlla teggil na leen ko naa ne bu seen équipe bi continué woon di gagné ndax ay waxtu yu ñu sànq waaye yàlla hakim hakim alim waaw na yenn yu bëri yàlla diñ ko teggil parce que yàlla xam nanu yàlla xam nanu demoon nañ fi coupe du monde ban demee luñ fi delloo si mooy bokkaale bu bit yi duggee ku nekk génn sa sëriñ ne moo dugal bit yi ñu bàyyi yàlla yaa defe ne loolu yàlla fàtte na ko ah yéen defe ne loolu du bokkaale yàlla kenn du ko sant ci li muy def lu baax Sénégal daal boo déggee ñu wax yàlla rek mooy lu bon moo am waaw am ah lii de yàllaa ko dogal moom moo ko def waaw bu dee lu baax nag ñu ne sëriñ bi la papaam la yaayam la kii yaayam li mu def ci kër gi xamoon ngeen ne dina am doom ju mel nii ana yàlla yàlla du def lu baax de Sénégal yàlla du def lu baax man de déggaguma ko musiba daal ñu ne yàlla ndaw si day ëmbal day day day xullee ñu ëmbal ko ñu ne yàlla la yàlla la mënoo ci dara lii yàllaa ko dogal bis bu amee jëkkër nag ju baax ñu ne wallahi gis nga kii yaayam xale bii waa ji kenn du wax yàlla moo tax it suñu problème yëpp a ngi nii foog mu am problème foog ñu am problème parce que du ñu delloo yàlla wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis xéewal yi ci yàlla la bàyyee ko wa ma bikum min ni'matin fa min man fa min allah xoolal yàlla min la wax wa ma bikum min ni'ma lépp lu ngeen yor ci xéewal na ngeen yëg ne ci yàlla la bàyyee ko benn benn paa dafa feebar dund na juróom-ñett fukki at nekk multi milliardaire moo koy nettali de mu ne lu ma soxla rek day am fa kullu ma nurid muhayyaun indi lépp lu ma soxla rek préparé nañ ko benn jour mu xëy bëgg a saw yi mënul saw ngeen baal ma baat bi bëgg a tuur ndox bëgg a tuur ndox mënul tuur ndox doom yi daw yóbbu ko ci clinique yi gën a rëy ci àddina bi médecin yi wër ko 30 secondes ñu réglal ko problème bi doom yi ñëw ñoom ñëpp ay milliardaire lañ ñëw ku nekk génne chèque ñuy ñuy remercier docteurs yi di leen may xaalis baa bi fi mu tëdd mu daal di jooy médecin yi daal di dawaat wër ko ne ko lan la lan la lan la mu ne dara doom yi ne ko papa lan la xanaa affaire bi dañu mu ne dañ na kay mu ne ñii lan lañ def ba ngeen leen di remercier papa ñii ñoo la doon faj n'est-ce pas affaire bi ça va mu ne ça va waaw mais man yàlla juróom-ñett fukki at yàlla mu may bàyyi maa ngi tuur ndox kenn sant ko ñun ñi bu ñu juddoo léegi ñaataat lañ am ku nekk yàlla mu la may ngay xool kan moo julli ñaar ràkk ne yàlla sama bët yi maa ngi la ci sant kan ci ñun fi yaa ngi dox bu dëgg bëccëg dox nga ba ngoon ngay tëdd nga ne yàlla xaaral ma julli ñaar ràkk ndax wax dëgg yàlla sama tànk yi bu la neexoon nga téye nga sant ñaar ñaar yàlla ñaar ràkk ci tànk yi ci bët yi ci nopp yi bakkan yi gémmiñ gi xéewal yi la yàlla defal sa wirgu yaram gi kan ci ñun moo ko def voilà parce que xamuñu xéewalu sant jàpp nañ ne sant bala nga koy def rek mooy nga lekk ñaari ginaar ba sa biir na këj nga ñaan naa ñaan ñaari coca ne gërr alhamdulillah xam na ne loolu mooy sant yàlla fekk sant wees na foofu xéewal yi leen yàlla defal borom bi nee na subhanahu wa taala jógewul ci kenn kudul man wa ma bikum min ni'ma fa min allah fa min allah waxul kenn ci yàlla la bàyyee ko mbokk jullit yi sunu borom subhanahu wa taala moo woo doomu aadama boobu mu ne ko lu tax nga mooy yàlla lan moo fees sa bët ba nga bàyyi yàlla boobu nga xam ne julli sax dootoo ko defati julli julli julli sax dootoo ko def man lazi xada ak fatlaqta basaraka ila alxaram lan moo la dal yow doomu aadama ba nga boyal sa bët yi ci lu araam xool sunu bopp tey tey ku bëgg ci Sénégal nga ni du ma xool lu xaraam da ngay boyal say bët ci mbedd mi ci image yu télé yi ubbi say nopp ah allah ndeysaan allahu akbar film bi ma leen di wax ni démb magu imam Ghazali magam bu góor benn jigéen a ko topp jigéen ne ko yow fa nga sëy ak man foog ñu sëy ndaw si jaral ko mu taxu fi mu dëkk ñëw luwe kër gi dend ak kër magu Ghazali cheikh bi bi mu yëgee kii fitna la mu tëdd guddi di gént di ko gént bi mu xëyee suba dafa ne dabar ji maa ngi dem wéetali ci sama borom ndax seytaane moo may moo may songu si te su ma demul rek musiba daf may daal bi mu demee mu nekk fa ñaari weer ci àll bi ci montagne yi di woor di naafila di jaamu yàlla ba imaan bi yëg mu ñëw këram teg ay bagage am dem jàkka ji di ñëwaat rek dajeeg ndaw si ndaw si song ko benn kaddu la ko wax ndaw si pare parce que am na imaan ñun lan moo tax mënuñu am imaan yonent bi nee na ku bàyyi xool lu araam yàlla may la xalaawatul imaan ci sa xol da ngay dajeeg mbokk yu bëri ñu ne non man maa ngi xiyaam maa ngi woor mais mënuma am bànneexu ngëm yàlla ba nit ni muy macca tàngal mu saf ni ngay naane café mu saf mu neex ni ngay macce suukar noonu ngay toogee nga yëg xalaawatul imaan nga yëg ne imaan mu ngi sa xol mais boo toogee ba amatuloo loolu lan moo la ko war la xa xañ mooy li ngay libéré sa bët yi muy xool lu araam yeneen bi nee na ku bàyyi xool lu araam yàlla may la bànneexu ngëm mu ne man lazi xada ak falam taxsha allah kama taxsha al anam lan moo tax nga war sa borom ba fan la la yóbbu mooy nga ragal nit ñi ragaloo yàlla nga ragal nit ñi ragaloo yàlla bu nit ñi toogee nga normal sooy jaamu yàlla ci kanamu nit ñi mu rafet lool sooy wax nga contrôler li ngay wax soo wéetee nga def lu la neex lan moo dal doomu aadama yi mu ne maa xadaaka falam taxsha allah lan moo la wor ba ragalatoo sa boroom lan lan lan nga gis mu ne ndax ahiya dunia mbaadu aduna mbaadu aduna amma kunta taalamu annaha daaru fana wa fanat ko aduna jay ba nga bàyyi sa boroom yàlla nee na maa ngi lay yëgal ne aduna bi day jeex te jeex na ba pare wallahi i'lamu annama alxayaat dunia laibun wa lahu wa ma alxayaat dunia illa mataau lguruur xoola baat bi ci maa xarraka moom la yàlla indiwaat fii wa ma alxayaat dunia illa mataau lguruur dund àdduna nekkul luy waraate ñaata nit la àdduna war ñaata ñaata mbokk yi ba ñu juddoo ba léegi gisaguñ fi benn waay bu fi des ñu ne kii yàlla daf ko fàtte kii du dee àdduna bi li muy yaatu yaatu chaque jour ñu gis ku ñu fàtte añ wala mas ngeen gis ku ñu fàtte añ ma leen di laaj mas ngeen gis ku ñu fàtte añ mas ngeen gis ku ñu fàtte reer mas ngeen gis ku ñu fàtte ndékki mas ngeen gis ku ñu fàtte njogonal mas ngeen gis ku ñu fàtte ci lu nekk ma fan ngeen gis ku ñu ku fàtte ku ñu fàtte ci dee xool àddina bi mu commencé ba léegi pourtant même tey président bu ñëwoon di may sénégalais yi dina am sénégalais yu mu fàtte wala ñëpp lay jox nañu waaye xoolal yàlla ba dee commencé ba léegi gisu leen ku fi nekk di tambaambalu di tere na ñu ne ii kii xam naa liste bi du ko gars yi di bind te turam dañ koo tëb mosoo ko gis parce que yàlla moo ko programmé allahu akbar ni yàlla xamee asamaan si ñaata kilo la suuf si ñaata pepp la ndox mi ñaata litre la noonu la yàlla xamee ñiy dox ci kaw suuf hatta xobu garab yi da ngay dégg alquran ne la yi tooy ak yi wow yi wadd yépp yàlla xam na ko mu ne lépp wa kullun fi kitaabin mubiin lépp a ngi ci téere bu biir bu leer bu ñu enregistré kon mbaadu àdduna moo la jay yow doomu aadama ba nga bàyyi yàlla mbaadu àdduna déedéet kon lan la ahiya shahwaat wala ay bànneex moo la jaay ay bànneex amma taalam annaha zawal xanaa yëgoo ne bànneex lu mu neex neex neex neex day jeex tiimal lekk benn waaye da doon sàcc lekk ci jamono bi nit ñi xiifee fii ci caaro yi jamono bi nga xam ne lekk amul day bàyyi ba guddi mu raam dugg ci camp militaire bi dem ci lekku militaire yi di sàcc ginaar yi di lekk benn bis gars yi xam ne am na kuy sàcc ginaar yi ñu monté ay commando waa ji ñëw raam ba dugg ubbi bool yi commencé lekk yéegul rek ñu armé benn pistolet ne ko krak krak dugal ko ci nopp bi mu ne nii waa ji ne ko lekkal mu lekk benn ginaar mu jeex mu xool waa ji waa ji ne ko lekkal mu lekkaat beneen ginaar mu jeex mu xool waa ji waa ji ne ko lekkal mu commencé jooy xam ngeen ni ginaar yooyu safatul ku tiim ginaar di jooy ginaar yooyu neexatul allahu akbar tiim ay ginaar di jooy xam nga loolu neexatul de safatul ah kon su fekkee ne bànneex la yëgal ne bànneex boo def rek ay minutes la après day jeex léegi ñu naan lay jël bànneex yi jeex nga dugg bàmmeel amatul bànneex allahu akbar mu ne loolu day jeex wala kon lan la ahuwa shaytaan amma alimta annahu laka aduwun mubin bu fekkee seytaane moo la jaay ba nga bàyyi yàlla xanaa xamoo ne moom seytaane sa noon la yàlla loolu la la wax seytaane sa noon la idan ma allazi xadaak ajib ajib ajib lan moo la war tontul lu tax nga bàyyi yàlla lu tax boo déggee ñuy ne du fajar doo julli lu tax buñ ne la yàlla nee na doo taxaw lu tax su la ne yàlla tere na doo bàyyi lan la tontul ajib ajib tontul ku nekk ci laajal sa bopp lu tax su yàlla waxee du ma def lu tax su teree du ma bàyyi lu tax su ma woowee du ma ko wuyu lu tax mbokk yi axil fadil uxtil fadila innaha la aaya azima wa tazakkar mubayinan liman waaha wa karraraha mbokk jurit yi aaya bu réy ngi bu màgg nañ ko fàttaliku bu wóor ñu dégg ko ñu dégg njàngin mi ñu daal di koy répété waat sooy tëddee deel wax yaa ayyuha al insaan maa garraka bi rabbika al karim man de duma bokk ci groupe boobu man de duma bokk ci ñooñu naa naan lu tax ngeen trahir ma lu tax ngeen war ma man de duma ci bokk qum jógal kañ mu ne fii jaw fi leyl jógal bu guddi gi xaajee ba lëndëm lépp muuru ñëpp tëj seeni bunt ku nekk nga wéet ak ka nga bëgg biddéew yi daal di soo buntu néeg yi tëju ñu wàcce rido yi dugg ci mbàjj yi ku nekk nga wéet ak ka nga bëgg jógal nga wéet ak sa borom qum wa tunaaji rabbak jógal salli rakaatayni li zulmati alqabr jógal nga julli ñaari rakka ndax lëndëmu bàmmeel jógal ah mbokk yi mbokk yi su la benn waay fëggoon quatre heures du matin nga jóg mu ne la damaa am problème bi nga dox ci problème bi ba fajar ngeen tàqali ko nga dem tëddi mu tëddi huit heures ngeen daje lu muy wax nit ñi kii moo fi gën wallahi kii waa ji do allah waaw lu tax kon bu guddeetee ba mu lëndëm ba ñëpp wéet ak ña ñu bëgg asamaan si ñuul biddéew yi so bunte yëpp ñu tëj leen lu tax du ñu wéet ak sunu borom yàlla ba muy tagg gaa ñu baax ñi lan la wax kaanu qalilan min alleyli maa yahja'uun wa bil ashaari hum yastaghfiruun ñoom de daaw ñu nelaw guddi lu néew yaa ayyuhal muzammil qum mata alleyl qum illeyl illa qalila moo tax mu ne lu tax nga bàyyi sa borom bu guddi gi di xaajatee ku nekk mën ngaa wéet ak moom ba mu des sa borom allah da ngay gis bu guddi gi lëndëmee ku nekk ak sa soppe ñii ndeyjoor ñii càmmoñ ñii à gauche ñii à droite pâtisserie fast food bièche doré restaurant ku nekk ak sa waay ana gaay yàlla yi allazina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyaama ndeysaan imam Ghazali ndeysaan ak film bi su guddi gi jotee bu mu jóg di xiyaam jabar ñu ne ko imam lan la imaam xanaa rafetuma xool ma xanaa tuwaletuma mu ne ko aljanna dafa am ñu fa nekk te ñoo la dàq xanaa lal bi nooyul mu ne ko lali aljanna moo gën a nooy imaam reer bi neexul mu ne ko reeri aljanna yi moo gën a neex allahu akbar maa loolu moo tax ñooñu waruwuñu waaye ñun lan moo ñu war mooy li ngeen di gis moo ñu war ku reer ku lekk ginaar rek non te dama dama dama sama biir bi dafa fees mënumaa xiyaam mënumaa naafila guddi ginaar rek nga lekk ginaar ndeysaan loolu moo ñu nax mbokk yi mu ne ko jógal jullil ñaari rak ya ayyuha al insan ma garraka bi rabbika al karim wa tamassal nafsak maza tujibu tazakkar zunubak ala tafritik bis bu la yàlla taxawalee ci kanam laaj la laaj bi ne la ma garraka bi rabbika al karim lan ngay tontu lan ngay tontu bu la yàlla ne lu tax nga bàyyi ma deuxième tomb bi ci waxtaan bi ay borom xam-xam ak ay sahaaba ak ay taabiin yu ñu wax maa garraka bi rabbikal karim ku nekk daal di indi nan la déggee aaya bi maa garraka bi rabbikal karim mbokk julit yi kenn ku nekk ñun xalaatal sa bopp bis boo taxawee ci kanamu yàlla yow kese ak moom mu ne la maa garraka bi rabbikal karim looy tontu ku nekk imaginel sa bopp man yéen ak ñi ci ginnaaw ku nekk rek xalaatal bis bu ma taxawee ci kanamu borom bi bis buñ ma indee ba ci bàmmeel yi suul ma ñëpp ñibbi yàlla ñëw laaj ma ne ma maa xarraka bi rabbikal karim lan laay tontu keroog il faut ñu préparer tontu yooyu question yi ay tontu ixwaani taxayal ma'i haza al manzar imagine jëlal defal imagination taxawaay boobu annaka taraahu yaa ngi koy gis yaa ngi ci kanamu yàlla subhanahu wa taala imaginel taxawaay boobu lan ngay tontu sa borom subhanahu wa taala lan loo koy wax mu ne sikk nekk ci ne foog nga taxaw taxawaay bu tiitlu bu ragal boobu foog nga taxaw ko isa samaun fatarat wa isa alkawaakibu intasarat wa isa albihaaru fujjirat wa isa alqubuuru busirat mu ne aliman nafsum ma qaddamat wa axarat yaa ayyuha al insan doog a ñëw mu ne fa yaa ayyuha al insan maa garraka bi rabbika al karim gis bi yàlla wax li mu wax yëpp su amee asamaan biddéew yi lépp li yàlla wax bam le na maa garraka bi rabbika al karim bunt yi tëj nañ ko wàcce nañ rido yi doomu adama yi la indi woon dem nañ yow kenn ak borom bi ci biir pax bi mu ne la maa garraka bi rabbika al karim mu ne fa maza tafal soo noppee cër yi ñooy tont bët mooy wax ana lil xaraami nazart li araamoon maa ko doon xool nopp ne ana lil xaraami samitu li araamoon maa ko doon déglu loxo ne ana lil xaraami lamastu li araamoon maa ko laal tànk ne ana lil xaraami mashaytu fi araamoon maa fa doon dem malaaka bi nekk ndeyjoor ne ana katabtu maa ko bind malaaka bi nekk càmmoñ ne ana shahadtu maa ko fekke woon yàlla mu ne laqad araftu wa satart xamoon naa ko de waaye dama koo nëbboon waaye jàpp leen ko laqad istadda gadabi ala man qalla hayaahu alayya abdullah ibnu abbas nee na su yàlla ne malaaka yi xuzu mu ne juróom-ñaar fukki junni malaaka ñoo lay jiiroo juróom-ñaar fukki junni malaaka fan la ñuy egg ci nit fan soixante-dix mille malaayika su yàlla ne xuzu moo tax jàmm la waxul xuzu xuzu mu ne sab'una alf malik ñoo lay jàpp dañoo kenn rek xajul ci yow kon nañu bàyyi xel aaya yi nañu bàyyi xel fa ñu jëm nañu bàyyi xel lan moo nu fi indi nañu bàyyi xel lan moo tax mu indi ñu fi lañu bàyyi xel kan moo nu fi indi bu ñu xamee loolu rek àdduna duñ jay duñu bàyyi suñu borom lu mu xumb xumb lu mu neex neex lu programme yi bari bari bari bari dañuy bàyyi xel suñu borom mbokk jullit yi tënk bu gaaw ko mu ngi guddi laaj nañ borom xam-xam bu tudd kalbi mu ne wa qaala muqatil nazalat fi l aswad ibnu shuraiq daraba annabi صلى الله عليه وسلم فلم يعاقبه الله عز وجل فانزل الله هذه الايه ايه بي يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم لان موتاخ مو واج مقاتل نينا بن واي بتود اسوار مو دور يوننت بي ها موتاخ غيس نين يوننت كون نكه ba ila an yari sallallahu arda wa man alayha ñi koy wax lu bon ak ñi koy def lu bon duñ fi jóge ndax ñi ko doon def lu bon démb seeni sët ñoo fi nekk tey seeni maam ñoo dee rek sët yaa ngi fi seeni sët ñoo fi des moom aswal moo dóor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dara dalu ko muy bonde naan moom bu doon ab yonent nga defe ne dara du ma dal yàlla ne ko yaa ayuha al insan maa garraka bi rabbika al karim def lu bon dara dalu la ngay bonde mooy li am tey ci suñu dëkk bi def lu bon ñëpp xam ne da ngaa def lu bon ngay bonde ñaata jigéen ngeen gis yu ñu ëmbal ñu xëy suba def ngénte lu xumb waa ji bonde moog ndaw suñu toilette ñu naan gaayen baa ngi ne mu ne kii la waa ji la muy bonde wala gisu leen loolu wala tegu leen ci bët ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yéen a ngi ko gis bis mu nekk def lu bon ba pare di ngand ngandlu ñeneen ñi ñëw mooy yaay ngand da jëf bokkoo ci di pompe ay kurpeñ allah suñu borom ne tekk rek di la woone xoolal borom bi moo baax xoolal li nga def yëpp te raw mu naan la yaa ayyuha al insaan maa garraka bi rabbika al karim ay waay sama waa ji ay waay waay sama waa ji waay waay sama nguur si allah sunu borom dafa baax qataada mu ne garrahu aduwuhu ki ko war mooy noonam al musallatu alayhi ki ñu xiirtal ci moom muy cheytaan moo ko war yaani al cheytaan qataada moom loolu la wax bi muy firi aaya bi garrahu aduwuhu almusallatu alayh ki ko war mooy noonam bi yàlla xiirtal ci moom muqaatil mu ne garrahu afullah allah garrahu afullah garrahu afullah li war doomu aadama mooy yàlla dafa mën a baale ah yàlla dina ma baal comme yàlla day baale rek mu ne ah lu ma neex def comme yàlla day baale mu ne lu ma neex def gars yi gars yi ñoo soxor rek mais yàlla dinañu comprendre quoi et puis yàlla ku baax la gars yi ñooy wax rek loolu wax yooyu moo tax doomu aadama waru garrahu afullah xiina lam yuaqibhu fi awali marra bi nga defee mbir mi yàlla defu la dara rek nga waru waaw waaye banu israil bi leen yàlla wàccee tawraat ne leen jël leen ñu lànk yàlla déjjati benn montagne indi ko ba mu tiim dëkk bi yàlla ne leen xuzu ma ataynaakum bi quwa aca jël leen dañ koo jël dañ koo jël parce que montagne moo leen tiim ñun nag bi ñu yàlla waxee wala ba ñu defee lu bon dara dalul ñu ci première fois bi def nga lu bon dara dalu la bi nga mooyee yàlla bu boo boo jékki-jékki woon ay pes tël tël tël tël ay bulet yow gisul nga ni tekk ñu ne xam nga li nga def ah suba de nga naan ay gaa yi démb tulli yiñ ma tulli waaye xoolal allahu akbar comme dara xi daru la rek da ngay waru waaw dem sangu ba set toilette génn di jaagar jaagar yi parce que dara daru la ndax yàlla moo la moo la moo la baaxee loolu moo ñu war loolu la sahaaba wala kenn ci borom xam-xam yi ku tudd muqaatil loolu la firee yaa ayuha al insaan maa garraka bi rabbika al karim qala saddi garrahu rifqullah keneen mu ne xam nga li tax doomu aadama wari waru mooy lewetu yàlla ci moom yàlla dafa lewet ngay toog di mooy rek mu toog di la xool ngay mooy bi nga amee vingt ans ba ba ngay am quarante ans ngay mooy vingt ans yu mën sëkk ngay mooy yàlla dara dalu la dépasse baa ngi mot feebaroo sojoo wànnentoo dërëm nga continuer nee na loolu moo war doomu aadama ibnu mas'ud mu ne ma minkum min ahad illa sa yaxlu llahu bihi yawma alqiyama fa yaqulu ibnu adam ma garraka bi ibnu adam maza amilta bima alimt ibnu mas'ud nee na amul kenn ci yéen lu dul yàlla ni mu wéetee bind ko yàlla dina toog wéet noonu ak moom di ko laaj amul kenn ci yéen ni yàlla wéete bindi leen noonu lay wéetee ci laaj di la laaj ne la doomu aadama lan moo la wor doomu aadama li nga xam loo ci jëfe yabnu aadam maaza ujibta al mursalin yow doomu aadama yonent yi bi ñu ñëwee di woote loo leen tontu loo leen wax ibnu mas'ud moom noonu la firee aaya bi wa qila lil faysal ibnu iyad law aqaamaka allahu yawma alqiyama fa qaala lak ma garraka bi rabbika alkarim maada kunta taqul mu ne aqulu garrani suturuka almurqaat waaw yow sëriñ bi yowma alqiyam yow fadaylu ibnu iyad bu la yàlla taxawalee yowma alqiyam ne la lan moo la war ba nga bàyyi sa borom looy tontu mu ne rido bi ma muur laay tontu dama naan yàlla moo ma muur rido yàlla moo ma muur benn rido kenn gisuma may def lu ma neex loolu dong laa koy tontu allahu akbar wallahi yàlla moonu yàlla moonu sàng sutura bu njëkk ba banu israil ku mooy yàlla boo xëyee dañ koy def ci sa jë wala ñu bind ko ci sa bundu kër diw dafa mooy yàlla wala ñu bind ko ci sa kanam diw dafa mooy yàlla ñun léegi da ngay dem mooy ba mu neex sangu ba rafet ñëw diw habatu sawda ak milen bu tax génn gaa ne si mais waaj dafa am nuur di dafa am leer leer man leer la fekk leeru diw la du leeru yàlla du leeru diw diw leeru milen kokobati ah zeyt olive loolu nga diw yal nañu yàlla yërëm wa qila yahya ibnu muaz law aqamaka bayna yaday fa qaalaka ma garraka bi rabbika alkarim fa ma aqul mu ne garrani birruka ya rab garrani birruka ya rab salifan wa anifan waaw yow muaz bu la yàlla taxawalee ci kanam ne la lu la war looy tontu looy tontu mu ne dama naan ko yàlla sang mbaax moo ma war sang mbaax gi nga def ci man mbaax gu njëkk ak mbaax gu mujj loolu dong moo ma war mbokk yi noo ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala njuum tey nekk ci waxtaan bi yal nañ ko yàlla jéggal ñoo ngi ñaan ku fi teew yal na yàlla jéggal la sa bakkaar yal na yàlla def la jaamukatu yàlla yal nañu yàlla nangul nangul leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu kon mbokk yi waxtaan bi ñoo ko dégg ñëpp dégg nañu li Oustaz wax salaam ñu koy ñaanal borom bi subhanahu wa taala borom bi fay ko mu gën di fay ñu toogoon di déglu tamit yàlla ñu yàlla ko dégg ak toog amiin amiin li mu doon wax ne ñun ñëpp la ko doon wax xanaa bu ñu ko jógee ñu gën a góorgóorlu jaamu yàlla subhanahu wa taala bu fekkee ne bu ëllëgee bëgg nañoo dugg aljanna nañ dem jaamu yàlla subhanahu wa taala li gën a garaaw nag mooy maanaam wax ma sax yow nga fàtte yàlla subhanahu wa taala waaye yàlla fàtte loolu boppam mbokk yi képp koo xamante ne maanaam seytaane jaay na la ba nga fàtte yàlla subhanahu wa taala xam nga résultat bi mooy la résultat bi mooy yàlla da lay fàtte borom bi nee na ñi nga xam ne man fàttaloo naa sama bopp ñoom ñooy kàccoo yi wala takunu kallazina nasu llaha fa ansaahum anfusahum ulaika humul fasiquun borom bi subhanahu wa taala bu leen bokk ci gaa yi nga xam ne dañoo fàtte yàlla subhanahu wa taala mu ne mu ne man yàlla ma fàttaloo sama bopp borom bi ne gaa yooyu ñooy kàccoor yi mbokk ñu ëpp si doomu aadama dañoo fàtte yàlla subhanahu wa taala wallahi booy xool société bi ni ñu mel nga xool suñu jeunes yi ni ñu mel xool suñu xale yu jigéen ni ñu mel da ngay xam ne ñii dañoo fàtte yàlla yàlla fàtte nañ seen bopp maanaam ñoom yàlla daa jaar nuy jaar ne seen programme yàlla bokk ci mbokk yi nit du mel noonu te wallahi bu yeboon nañ góorgóorlu jaamu yàlla ku gis dee gi ni mu bëree léegi nii nga yaakaar ne bokkoo ci sa bés a ñëwagul rek de mbokk góorgóorlu nga jaamu yàlla subhanahu wa taala balaa balaa jaamu yàlla di wees am na kuy dem ba alaxira ba rëccu de ñu bëree bëri bëri dañoo naan dem ba alaxira naan yàlla delloowaat ma rabbi irjiuni laalli amalan salihan fi ma tarak ay yow sama borom yàlla delloo ma dama yaakaar usaa bi day wax rek ñii dañoo bë dama yaakaar dañoo bëri wax rek bu ñu waxee nga ne yërmande yàlla yaatu na topp si loolu rek naan yàlla bin kenn di ko lakk nekk ci caaxaan yooyu ba xëy taseeg yàlla subhanahu wa taala fan ngay mujjee yaa laytani kuntu turaba yow yàlla def ma ma nekk suuf ah yàlla baal ma ma delluwaat yàlla jéggal ma laalli amalan saalihan fi ma tarak dinaa góorgóorlu ba li ma li ma li ma li ma weesoon ma jëm ko dab dabaatal mbokk yi comme nag deewaguñu incha allah yàlla yéex te ànd ak jaamu yàlla subhanahu wa taala waxtu tuub des na fi dañ tuub dellu si yàlla subhanahu wa taala ñu góorgóorlu en tout cas yow moom bu kenn jaamul yàlla yow demal nga jaamu ji yàlla parce que ba si ngi ñëw yow la ñuy yóbbu de kenn du la gunge nag lu sa jëf ju baax kon bu ko defee nañu góorgóorlu mbokk ñu jaamu yàlla xale day jaamu yàlla mag day jaamu yàlla jigéen day jaamu yàlla góor day jaamu yàlla subhanahu wa taala loolu moo tax yàlla bindu ñu wàcc ci kaw suuf amul leneen wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun faqat amul leneen kon nañu góorgóorlu mbokk yi usaa li mu wax fi dafa daw daw yaram de teraanga yi ñu yàlla defal yëpp xéewal yi ñu yàlla defal yëpp wallahi ku jaamul yàlla da ngaa ñàkk jom rek bu ñu naxante suñu bopp ku jaamul yàlla da ngaa ñàkk jom wala seytaane moom moo la moo la moo la war waaye yàlla lim ñu defal wallahi mënuñu ko wàññi kon naka lañ ko mën a naka lañ ñu mën a fexee ba yàlla kontaan si ñun mooy ñu jaamu ko moytu caaxaan yu bëri dëkk bi daa bëri ay caaxaan caaxaan dafa bëri ay supporter ba nga yaakaar ne caaxaan mooy gañe fekk caaxaan du gañe de nekk ci dëkk dëkk ci dëgg donte yow kenn nga donte kenn nga seen koñ góorgóorlu nga jaamu yàlla del dem jàkka ja yow bi jeune bi del julli del woor del jàng alquranu karim moytul caaxaan moytu foo wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin kon mbokk yi bu ko defee ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala li oustaz doon wax fi yàlla ñu ko yàlla yombalal moom tam yàlla na ko yàlla fay gën di fay yàlla dafa ñu dégg ak topp incha allah xam naa question du fi xaj comme timis jege si na incha allah dañuy yeewi jeetaay bi ñu xam ne mbokk bi nga xam ne moo moo waral waxtaan bi mooy mbokk bi toog nii mooy Jibril Wade moom lañ ziyaare ji woon moom moo waral waxtaan bi moom seen kër mi ngi ci côté bi nii mais dañ doon bañ mu nekk foo xam ne day ruqee ba waxtaan bi ñu bëree bëri buñ dikkee duñ ko xam loolu moo waral ñu andi ko ci terrain basket bi gis nañu ñu bëri bala alhamdulilah bi ñu toppee liñ tegtal sonn ñu noonu kon ñu xam ne mbokk bi mooy Jibril Wade na ko ñëpp xam su ko defee ñu xam ne suñu mbokk la boo xam ñoo bokk ci islam bi di yëngatundoo su ko defee loolu mooy waral wa programme bi ñu koy toxal gox bar gox incha allah ñuy yëgal fi ñu jeexale mooy beneen programme bi des mooy le 15 février lay am boobu mi ngi amee ci ñaari ku ñoom Omar Diallo Omar Diallo mooy benn mbokk bu dëkkee ci côté